leer na itam fi nañ ko jëriñoo ndax loolu rek mooy solo si kàddu yi lu mu bari bari lu mu dëggu dëggu dëggu jëriñ solo si mooy ñu mën koo jëriñoo ndax dëgg bi romb nopp waaw kooku di agsi mooy borom bis bi بنعمة ربك فحدث wax li la yàlla may kii laa nekk ba bis ñëw kiiraay bi doxoon sama digganteeg yàlla Serigne Touba muril ma ma ne fàddu leen man fàddu naa ku dox ba gis sa àjjana looy defati ci àdduna xanaa booba géwél gi jar na ko kon sama maamay diw fexeel ba koo laal mu niin de bu fekkee ne mënoo niinal kenn sama bu dee diwit yow rakkal sama maamay diw laa ne fexeel ba ku laal nii boo mënta nii na laa teg sama mu dee diwit yow rakkal nga na borom de mala yi mala baal mala baal ma lii nga tëggoo ba bu ëllëgee ñu la acca baal ma lii yàlla ne la baal ma lii baal ma li nga tëdd boo lëgee ngay malaat ay doomu aadama lanu ay nit lanu ay jaami yàlla lanu kenn jëluñu ci toolu xare kenn du kenn jàppuñu njaam ku yàlla nañ jël suñu bopp delloo ko yàlla moo ñu dëkk loolooy dëkk waaye nag bala ngaa mën a delloo yàlla ki la delloo sa bopp ki moom da xam ki moom ba pare man arafa nafsahu faqat arafa rabbuhu ku xam sa bopp ci dëgg xam sa borom. mais nit ñi gàtt xel mënta passé ñu ne ëllëg yomal xiyaam yàlla day dajale ñépp naka saa ñu toog benn place sëriñ bi sëriñ yi ñëw di seet seen i ma ma ne quartier bii ñu nekkee rek bu ñu dajee woon ñoom ñëpp ci benn place fii ci Sénégal ci àdduna billaay sëriñ bu fa ñëw ba a gis sa taalibe nga sonn waxuma laa foo xam ne Gambie Guinée Bissau fépp nañ fay daje pénc ba kenn du la ne nit ñi nit ñooñu ab sëriñ ñëw di fa wër loolu gàtt xel mën na ko passé mais nit ñi nañu liggéeyee seen xel pénc moo xam ne li ñu ko waxee ñëppay ñëw teew kenn du tal kenn ñëpp def yaramu neen kenn ku ci ne am lu la doy nga ne sëriñ bi ne la fa wër di la loolu xam nga ne demewul noonu waaye dina am nag waaye amewul noonu kon xam yàlla rek moo wóor dama koy misaal lu bëri ma ne ki peppam réer dugub mu di ko wër ba dugg ci kër ñu tey ko cere ba te defal ko ñeex mu di ci reer naan sama dugub laay wër te ca lay reer kooku dugubam du feeñ. waaw. yàlla dafa am ay tajiliyaat ak ay tasrufaat boo xamul rek xamul waaye ñu bëri dinañ waru ndax defe nañ ne nii ñu mel nii bu ëllëgee noonu la ñuy mel yàlla dafa xereñ dafa am ay ijaab yoo xam ne fekk saa ay barsàq yu muy teg la xam nga dag dinañ wax ne diw ma nga barsàq barsàq boobu dañ ci teg bët dañu bëri xàmmewuñ ko da ngay dem sax téere ñu lay jàngal barsàqul keefir ak sàpp na loolu yëpp dañ ciy teg leen ma dana xam leen ma ku ko gis xam ko maa ngi koy wax ak benn mag tey rek ñuy waxtaan ci cadre bu mel nii ñuy waxtaan ba dugg ci bayitu olofalaw sëñ sàmba Diarra boobu fekk ku gëm ay olofal la mais nit dina weddi loo xam ne bu bu fekkee jàng na mooy yeewaat boppam ñuy dox ci bayit boobu ba àgg ci mu ne gumba ba gumba jeex gumba ci xol mooy wax ju jeex yàlla ñu yàlla may gis bopp du jeex di bëti xol ak yu kanam ku yàlla woon boppam mu gis ku yàlla yiir boppam du gis ñii di ko gis ñii liñ ko gis mooy ñi ko réer ak ñu ko xam alors falu sëñ Masamba Diagne nga mën a li nga doon weddi yeewaat nekk sa bopp xol bu gumba kay moo gën a yées bët yu gumba ndax nit dina gumba ciy bët di dox di dox ay soxlaam bañ ne xolam ay gis waaye xol bu muul mooy musiba ijaab bu gën a kawe la kon xol la ñuy faj yam hoo bi taqwa xusoo sa nafsi jumlataha yahiixuloo man min al mawla saniyaat sëriñ Tuubaa ne nag sëriñ bu ma sëriñ dafay raxas ci ndoxam rogal yàlla xolub jaam yahiixuloo man min al mawla saniyaat daf koy làkkal xam-xam boo xam ne ci suñu borom lay bàyyeekoo mu waxaat ci mu naawiru sudur alxalbu kal fil ahdaai mahma yamilu tamilu ma ahtidaay xol mu ngi mel ni buuru cër fu mu jéng aw rek day jéng ànd ak ay dagam buur ak ay dag buur moom fu mu aw dag yi dañ koy toog xol bi mooy buur bi cër yi mooy cër yi waaw cër yi mooy dag yi mu ne fa in ndem namm nga islaha nga yéwénal kullu awsaalin bépp cër li wax ci man ngir jëmmi ka nga xam ne al ihdaau noonu yi xam axoo not na leen noonu yi xam nañ ko seytaane ba neex bakkan àdduna mhm. ne na fa aslihal xal ba na nga seetal sa xol mhm. bilaa tarniisi ci lu dul tilim mhm. xatta tura ba ngay gis billaahi ci yàlla saa tarniisi ngay boroomu dal ku gis yàlla doo jàq doo jaaxle dara du la tiital nit ku am dal ngay doon sa fit du rëdd doo ñàkk ba jàmbat doo bew doo am ba bew mukk ci àddina loolu du dal ko am yàlla ñàkk saalim wala am bew du dal ko yëg yàlla fa aslihal xalba bi laa tagniisi hatta tura bi laay sa tagniisi mu ne fa kullu man raa si walaay ahadin fii ay sayin fa huwa mutalum jahannam lii de def naa mun naa wér si dóor suñ tubaab bind képp ku xool ba xef te gisoo yàlla muy kenn dangaa murtat te dangaa jëhët di nga ak jëhët di juhóot wedda tay la nga am na weddi boo xam ne borom tëyu ko dafa xam mais juhóor weddeeg tay la weddeeg maa tay mooy juhóor nee na ku xool ba xef te gisoo yàlla ni kenn bépp mbir da ngaa murtat léegi nag kooku nekk ci tarixa bi dégg ñu ne kii day gis yàlla mu ne ay yàlla yàlla lañ moom baatu yàlla yàlla bi ak waa kër Cheikh bi moo ko dérangé ba moom dootul dégg lu keneen wax wala lu alxuraan wax moom daal bañ na bañ na rek kon moom bañul sax lii mais kuréel gi koy woote la sikk loolu nag moo dal Sénégal bañu ñu li ñuy wax xam nañ ne mu ngi ci alxuraan ak hadiis ak bindu góor yi waaye kuréel gi koy xoote woo leen si ñooñu la ñu bañ ba pare voilà mais boo jàngee masaalikul jinaan wala xoqal bu wala nga dem ci kasaa alxuraan di fa fekk ay tegtal yoo xam ne dafay tegtale ne yàlla mii ku feeñ la ku ne fàng la ku dara mënta nëbb la sëñ Abdou Khadir Jeylaan lañ la wax wa ruhyatul ilaahi fil absaari te joosi indi al ibtisaari mhm. gis yàlla ci ay bët dëggan dagan na ci képp ku am gis-gis mhm. fii kulli shay'in tadullu ala annahu alwaahid mhm. aayaatun tadullu ala annahu alwaahid nee na bépp mbir kéemtaan la boo xam ne dafay tegtale kenn yàlla kon mboolem nitu yàlla yi nga xam ne dañ doon dund tasawuf àgg ci yàlla xam yàlla gis yàlla jaaxalu leen ñi koy weddi kay mooy ñi nga xam ne gëmuñu tariixa dañoo ne ay sunni yu lañ mën nañoo lay mën leen a baal mais kenn mënta baal mooy ki ne ci tariixa gëm sëriñub tariixa mën a julli mën a woor man aska ba pare di weddi xam yàlla bu dee muy weddi na sëñ Tuubaa weddi na sëñ Ibra Faal bi waxoon ne rëpp sar sarale yàlla jàmm nga te lu nekk la ko fóode yi wax fóode yi dañ ko doon kaayoo dañ ko doon wax ne jàngil mu réedu di pexe dañ doon wax sëñ Touba sa dox bi bi tubaab bi jàppee sëñ bi dañ ne ko lii lépp yow a kii lay jay lépp mu na la mën nga ko lu la lu la dal moo la ko teg waaye tey ku ne sëñ Bamba na see Ibra ba mu ñëwee Mbàkke Bawol daf ne ne waa kër gi Bawol may soq tey rooti tewal boo léegi liggéey di ko joxe lu Bamba wax mu daal di naaw foo réer sant saaw naa ko da ngay deltu ginnaaw jàngil murit du di pexe dégg nga loolu de boo demee foo réer doo du réer ji sant saaw ja saaweel dooju ab quartier la ci Touba tey ko nettali de waa caawee dafa doon xas seera jàngil murit du di pexe daan ngeen muridu du pexe tey kuy muridu ñu ne ngay def xaraam na nit war a topp nit ak saa di ko nangamal nangamal fekk moom la mu am ca muritoom nit a ngi muridu te amu ko mbooleem murit di ko sew soow mu mel ni dox bu mat a yeew ba mujj ñëpp far ne siiw melokaan moo far di ko dox te ñëpp ngi doxe melokaan bi mais amuñu maqaama bi ma ne tey tey boo sëqalee karaw yor maqaamaay Baay Faal rek boo rombee ñu lay moyu ndax lan jikkooy Baay Faal léegi boo sole boo yoree ay njaxas rek wala nga yor ay njañ bu ñu la jàppee police moom dañ lay giñ koy tux kon kon ñu ngi mela bi mais amuñu maqaama bi lan lañ ko royee tey sëqal karaw sol njaxas takk ay buum tux mais koo ne xam yàlla àgg ci yàlla mën a déedéet kon lan lañ ko royee kon kay dañ ko làqatoo rek pour liggéey mooy li bàyyi sëriñ bi wax taxaw ci télé bi ku taxaw nga forcé ko ba lim lay jox joxum ñëpp te la koy jox loolu du la jariñ du jariñ sa sëriñ billaay wallaay yéenay joxe sëriñ bi fay mel ni sëriñ bi daa wër di lekk amee lul kenn bor ñun ñoo ko ameel buñ ko mënta fay mais xam nga loolu propagande la mais du dëgg addiye yi ñuy joxe tey dem nañ ba jamono yàq na ak seytaane mën nañu ba li sëriñ bi wax dal nañu boo xoolee nee na addiye ku koy yéem mënu koo fay ku koy xeet mënu koo fay ku koy naw mënu koo fay te sëriñ su bari ci addiye la ñuy peese seen taalibe yi ci gëm ak ci gëmul de boo mënee joxe nu ngoo jaayante ku kuy sa sëriñ yow lay teg muri saadeex ba wala tijaan bi gën a gën a gën a kawe te wallaahi asi nit a nii koo xam ne amul lu mu joxe ci ci ci ci ci ci alal waaye jox na la ab xolam nangul la tegu ci dëggal njub koo xam ne nii lu ñuy tere doo ko defee waaye borom bu mu oyof la kàttanal ci saa yaay waaye xoola kër sëriñ yi boo gaarewul oto néegu biiree doo ca dem doo koy géttu bay ngay ne ñaanu am guro ngay am mais ñaanu xaas moom borom alal moo ko am mais li may wax nit ñi dégg seen day li may wax nii làqatuwul de mu ngi ne fàng nit ñi di ko gis laa wax du ay léeg dafa am sëriñ bu demee bay gën la taalibe bu am ak bu ñàkk du sëriñ ak ku mën a doon laa wax mais sëñ Touba sëriñ ma sii sa ndonga ba mu demee bay ba nawet bi jeex ak bay ni mu méttee ca boobu ak mu jaay ko récolte ko muy benn dërëm mu ñëw kenn ci seexi sëriñ bi ku yàlla baaxe woon mu andi dërëm ñu tombe fa ñoom ñaar képp dana dërëm bii junni bii lay seexi te lu ma waay yéene ma ful koy junni kooku jar naa roy jar naa bàyyi xel de te damay wax ne gis nga joxe alal yomb na waaye joxe sa bopp te muy dëgg nga jëfe ndigal bàyyi tey loolu moo jafe te sëriñ su bëri xàmmeetuñu loolu nit dina la jox alalam ñëw sukk sukki tànkam fekk xolam sukkut su jootul doo ko digal mu def doo ko tere mu ba kooku jarul tiitaroo jarul tiitaroo parce que gëmut la te loolu moo bari taalibe boo xam ne soo ko digalee lu naqare bakkanam sax jaral ko mu bala moom kooku daa jar yow doo ko boobu yóbbu fenn booy dee doo ko yóbbaale buy dee du la yóbbaale te kenn ku ne jëfam moo koy seede ëllëg ànd bi lan la dañuy dem ba ànd bi sax ay àq da ciy dox am na ñoo xam ne bu ñu setoon seen digganteeg seen borom sax àq di ñuy am ci diggante ñu ñu àndal dina leen téye parce que wàccoo ci ànd bi. gaynde kum joox sa tool baay day booy waaye su fa jooxal fekk lii mën naa dem di yéeg ci gaynde gi waaye su ko bàyyam séenee day teg ñëw dafa xam li gaynde gi defe te liir bi xamul li gaynde bi defe waaye yàlla ku ca àgg xam ko kàttanam sañ-sañam coobare lu mu tere di ko ba sa kéemtalaay kàttan lu mu digle di ko def sa kéemtalaay kàttan ñàkk xam rek moo tax nit ñi defe ne nii nii ñu nekkee defe ne li ñuy def nit lañ koy def kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu waaye def boppam gis nga sëñ bi wax na ay wax yoo xam ne su ñu tëkkoo rek seen di ko góor yàlla mooy kii dem am xam-xam ëlbatiku sañ wax lu ne ci loolee ba nga agsee kenn waxewul naka nu ne nga ëlbatiku wax loo xamante ni waxloo wuñ lakk waxloo wuñ lakk na waxewoo ka nañu lakk wax ndax lan nga ëlbatiku ñu weddi loolu ndax jàppe nga ni dugg nga si yoon woo xam ne dañ ne ku sama sa dugg am noonu yow nga dugg si ni pour nga wan ne yaa ngi si biir force nga wuti noonu ndax loolu yi ndax xam yàlla ndax xam yàlla dafa jariñ jaam leneen lu dul jaamu yàlla waa kay kon jaamu yàlla mooy jaam bi delluwaat boppam ci boromam ba moom moom mu nekk mu ëlbatiku comme ni ko yàlla wax sama jaam duma jóge jógin lu dul mu dem ba man ma nekk noppa li muy dégg bët yi muy gise bakkan bi muy nokke làmmiñ bi muy waxee ay cëram yëpp mu mujj ko dóor ana ana ana ana yàlla fan lay taxaw jaam weddi yàlla lu yàlla lu nekk si kaw suuf yàlla lay ndamoo yàlla lay faaroo ndax tey jii xam yàlla mooy ëbbati ko taxaw ne man maay yàlla ndax tey jii xam yàlla mooy taxaw ëlbatiku weddi pour wane ni da xam yàlla mooy weddi yu baax yi fi nekkoon yu baaxoo ba képp ku bëggoon baax jaar si yoon woo ba dajal baax ndax xam yàlla mooy loolu. ba ñëpp jox du ma ne mbir yu ndaw yi su fekkee amoon na kon soqi góor yàlla yi wax nañu ba képp ku war a jot message bi jot nga ko kon nañu dellu suñu xare ak suñu bopp. ndax lan xam nga tax yaa ngi nekk jihaad bi gën a rëy mooy jihaadu nafs mooy da nga demaat ba yow yaa ferankulaay waat nekkaat si digg bi di gàllankoor ak sa kon baax dama wax ni duñu guddal wax dëgg yàlla bëgguñu sax guddal waaye xam àgg si yàlla ña sa nekkoon maqaama yi ñu amoon daraja yi ñu amoon nit ñi ñoo leen ko doon joxañ waaye doon ñu ko wax seen bopp bépp jaam boo xam ne am nga cër si ni maqaama ba dafa rëy maanaam ba nga yëg ni am na lu yàlla def si yow nga man taxaw di ko natt ba di ko wax billaahi yàlla defagul si yow ndax yàlla ku ko wax ba mu jeex waxoo yàlla ku ko natt mu am fu mu yem waxu ko teg ko fi yàlla yàlla kenn du ko wax ba mu jeex kenn du ko natt it xam fu mu yem géej googu looloo tax ku fa dugg ku nekk doo yëg li nga am ndax loo am lu ne yàlla yàlla desee ko ëpp kon il faut ñu dellu si suñu bopp dootul ñoo kenn ñun ak suñu bopp la maqama bu yàlla mayal yonent bi sallallahu alayhi buy dox dem si yoon yàlla war nga koo seexlu bu yàlla mooyal Cheikh Moussa jaam buy dox di mu wuyoo Cheikh Moussa war mu yéene si bis bii moo ko xam waaye yàlla nag yàlla bett lu gën a kawe njortu ñun fi teew ñu ñëpp yàlla nañ Cheikh Moussa nangul ndax moo yàlla nañ yàlla nangul ndax ay jullit kese la ci doy na si nit ci tegtal mu nekk ay jullit wuyoo woon lislaam référé woo yonent kuñ sa doole dañ ko njàmbaase ci ay jullit kese la fi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa مكبر لا إله إلا الله dugal say bakkaar te doo fa génn bakkaar waa daaru tey sa yoon ba tax de tey ñu baal la billaay ni ñoo la bal ba tax de tey ñu baal la waa lu naa ne dabiya leneen bëgg bëri ak yàlla ak yoneen gërëm matulana atotiyem neloonu kay daa jëri kay leen di jaare Babacar man sax mu daanaka ay bu doon la Alxuraan ba yéen yow ma kal ko kay leen di jaare ma feeñu génn passoir jëfam jure kii tegtal na gaa ñu xam ñu kay leen di jaare ma Moussa Mar jëm amoon ñëpp la leer minaka jan xayu mor si waaji ba altina jajabe për xone dama sey fi xalam tana musa am na garam saati bañu bina garam melaga seemu daama def nen ba gawa mi ñepp xam leeral ko woon na ñepp xam te doo jubal barim garam ñu jaal leen ko baax karim jàmbar loo bay na sa tam murid ne gay moo di këram sama saxoo di leen màggal di leen di jox seen wàccuwaay di leen borom bi subhaanahu wa taala jox di feeñal sama mbégte ak sama cofeel ak sama yëg ci yéen leer na kawe na màgg na jënd na sax na dañuy sant rekk di gërëm ne ko suñu sang di defee sax bu ko mënee noonu waaye ñu jéem ci barkeem sa Souleymane Niang mi nga xamee ne moo ñu def tey lii ñu doon ba mën ne jëmmal bés ba mën ne jël kàddu ba mën a sant ak gërëm di sant suñuy waajur ñoom ñi ñu may ñu am sañ-sañu tant ci buntu daara ji woo fi suñu mbokk taalibe bu mën a jël kàddu ba mën di sant wala di sant di gërëm mbokki taalibe yi fi teew di leen wax ne ku bëgg xam dëgg-dëgg suñuy mbokk na nga jàpp ne du suñuy wax waaye wax yonent bi sallallahu alayhi la dañu ko laaj yonent bi mbokk ñaata la mu ne mbokk de ñett la mbokk bi nga bokkal deret mbokk bi nga bokkal diine ak mbokk bi nga bokkal pas-pas ñu ne buñ doon wax mbokk yooyu kan moo ci gën nekk mbokk waa xel yépp li mooy mbokk ci deret dara koo jege ak mbokk mu ne dëgg la kay mbokk la waaye am na ko gën a jege ci ak mbokk ñu ne ndax mooy ñu bokkal diine mu ne dëgg la kay ak mbokk la dara gënu jege waaye am na ko gën a jege ci ak ñu ne kon lan moo gën a jege ci mbokk mu ne mbokk pas-pas mu ne misaal bi tey boo jugoon léegi yàlla tere ji ñibbi gis groupe toog am ca kenn koo xam ne dafay mbubboo tur woowu ñuy wax agresseur bu toogee ci jataay boo leen àndee di ñaar wala ñett bu ñu joxe ñee danaan ñeede ay agresseur lañu ñeede ay sàcc lañu nga fekk kuréel bu góor ña toog yiw lool solo ay jàllaa ak i mbaxana wàccee wala gàttal seeni tubay jigéen ñu muuru seen yaram bam des xar kanam yi ak seen tenk yi nga ni ñeede ay ibaadu leen nga dugg Tuuba gis fa mbokki taalibe yoo xam ne ñu nga sol ay sëriñ yi bu ah, takk ay njëll wala ay maxtume teg ci ay kol nga ni ñeede ay isbu lañu

naan ñeede ay isbu lañu te duñu wax ne ñeede ay murit lañu kon melokaan ba ak pas-pas moo tax ñu joxañ leen ne ay isbu lañu foofu la yonent bi sallallahu alayhi ne mbokk bi nga bokkal pas-pas kooku mooy sa ndax mën nga bokk ak nit ndey ak baay te bokk leen foo leen jëm bokk leen loo leen gëm di dund mu ne mën nga bokk ak nit diine ak diine bu mu mënti doon te bokk leen pas-pas bokk leen foo leen jëm bokk leen loo leen di dund waaye daal ñu bokk fu ñu jëm bokk lu ñu gëm bokk lu ñu yëngu ñooña moom danga naan ñii de ay nàngam lañu kon kuréel bi toog fii mën nañu wax ne ñii de ay yàlla yàlla lañu lan moo di yàlla yàlla sang yi leeral nañ ko lu ci leerul ñii ñëwaat dinañ ko leeral ñun duñ ci wax lu bari waaye kuréel bii daal nañu jàpp ne kuréel la boo xam ne ni ñuy jaxal ñee isbu yi di ko joxoñee musaasidin yi di ko joxoñee ibaadu yi nañu joxoñ a nekkoon boobu ñii ñoom ay yàlla yàlla lañu moo tax ma wax ci walla falu barki démb bi ma ni bëgg yàlla mooy dëgg mooy njub topp yàlla lii mooy dëgg tey ci yaa ngi ci njub waaye ku koy diingat nekkoo ci njub ma ni bëgg yàlla moo di dëgg mooy njub topp yàlla mooy dëgg mooy njub lii bu ci ne yaa ngi ci njub waaye ku koy dingat nekkoo ci njub ma ne Cheikhu lii la woote Maam Alaaji Malick lii la woote Seydina Limaamu lii la woote Xaadim Rasuulu lii la woote Maam Cheikh Moussa Njambe borom daaru lii la woote ma ne lii ñu yore mooy dëgg mooy njub lii da ku ci ne yaa ngi ci njub ma ne waaye bul di déglu ndax foofu lu jar leeral la cool bari na sangay dinañ leeral ma waaye bul di déglu noonu Cheikh Moussa yii ndax ña naan ñun kafe lañ ñuy jox nee nañ ku ca naan nag dootoo dem dafa naa li may waxee góor yàlla xam ngeen ma ne nag bul di déglu noonu Cheikh Moussa yii ña nga naan kafe lañ ñuy jox nee nañ ku ca naan dootoo dem ma ne waaye ndokku yàlla dëgg moo di njub ma ne bul weddi bul di dindi tuuma dëgg la kay kafe lañ jox waaye xel a koy segg nopp koy naan njàmbe daaru ñun jox nañu suukar te lii de ku ci naan billaahi dootoo ma ni Cheikh Moussa Diagne de moom naan na Cheikh Sangu Ndiaye naan na Sangu Ndiour naan na ah, ma wax ne naan na ma ni waaye ñoom li ñu naan la ñu naan ndax lii de ku ci naan dootoo waaw kon ragal péete dafay xañ wërsëg moo tax ma kon kuréel gi ñoo yàlla yàlla yi waaye lii yàlla yàlla duma ko leeral sang yee koy kon foofu lañ doon yaatal li ci des ñuy sant di gërëm ma njëkkee ci suñu sang yi dañu wax ne kàddu may yëkkati mu yëkkati madda mais ñu ko ràññeewul ci bu buñ fi jógee dinañ ne tout tànk bi kan la ñu ne leeru soxna Aïcha kon soxna Aïcha bu santul boromam kon dafa wetti wala dafa fecci kóllëre wala dafa war yàlla loolu moo tax ma njëkkee sant gi li ki des ma tënk sant Cheikh Ibrahima Mbodj di suñu sang sang bu tedd bi yabal ko gis ni mu bëggee yàlla ak ni mu bëggee dimbali jàmm yàlla yi ci leer gi ñu nekk ni mu bëggee yëkkati jaamu yàlla yi ba du tànqam lu benn bis bara boo ñëw fekkoo ko fa fekkoo fa sang bi boo ñëw fekkoo fa ci ndigalu sang bi kon boo jaaram ñi ngi sant di gërëm ah di sant Cheikh Daouda Diong kooku moom dama koy beral cantam ndax tey jii li tax mu may ma bis bii ci bisam laa ko am keroog bi mu amee soxna jaara bu sa mii am leer muy maam Xaadim ci bis boobu laa sóobu mënoon na ay yaatal mais damay tënk ndax bëgguma tënk jaam ni waaye daal ci gàttal ci bisu Cheikh Daouda ci laa jëlee baat من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن mbokk julli mbokk taalibe yi ñooy nuyu ñëpp di jiite ci nuyoo bi ak siyaare bi soxna Aysa mi nga xam ne day suñu wóllare mu jàpp ne te yàlla tax ñu jàpp ko ne yàlla tax ziar baax kilifaam yu di yu gitu, mag yi toog di ñaan ci dara ci Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa borom yëkkati na te na leen bu liggéey bi ngeen di liggéeyal sa borom sa borom yeggale ko def leen lu kaw seen jox xana lañ ci barke rek mu néew bëri yàlla dafa ngërëma sëriñ bi barke Cheikh Massamba barke ma samba barke Cheikh ma samba yéene liggéeyal ma borom Touba fas yéene ma borom Touba barke Serigne Touba وسيلة تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بالمناد حات وآبرحنا يدنات دولة ما لولا من لا يزال خود يولا خسدتي خسدتي خسيدتي فاخت خسيدتي فاخت خصمتي فاخت فاخت خسر الكرام فاخت خسر الكرام فخسر الكرام والتقيت أبدا خير المرام خطيتي مقتلة كل الملك كان مناسب وإحسان الملك ما توجه نصر الله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 إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عمدك ومنزل يدنا ودعاء ومنزل شفاء ودعاء من أمر عبادك بالدعاء والدفاع بعن البلاء شمالا مرعز مبسامة يربيا بدن وفاس بالخد محمد طبيبنا استسلام إلى والآل وسم بسير عن آي منتج سهول أسخاك لزف آي حاسا عيني مساعد آي متقيا وأنا مجيب الداعي وسكي إلى ما من الدرل خمسني عبر عن المقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفرنا بداية خير هل من الأكرم سمى بيمني رمضان عاصم والله يا رحمن يا رحيم يا بر كريم يا عظيم اغفر سمامنا تقبل منا واحمي حمامنا وابدا وانزلا ورقنا ربنا خانعا نعم. ما كان ما من مسين قد وهب لنا الآب والمسايا وقفنا أفعال ورسايا وهب لنا ورسا ولا تمات وقفنا قزلت في الأوقات يا بريا لطيف يا موافق يا ملوء أمر anzinaka magana dai wadamina bulik hilma muslimin وسنجلا ونادين وعافيك وببين ولا تناقصهم ولا تناقصهم ما لا ينقصك وهما هما بالذي لا يطلع والآخ لم خلق القلاء والآخ لم خلق القلاء خلق لنا عن الهوابط وأخرنا وهو بكل مسلم وناجنا من كل مجرم وتجمال مسلمين ترى أقلا أفنك فادرا وتجمال مؤمن فروندا ومالنا سمام قدا وتجمعان مسلمين فرتقا